waaw Moussa Dioum nag amagul combat te compa yéen dafa mel ni Thiès taa gis si damaa bëgg ngeen jox ma seen mbër ma Modou Anta jox leen ma Modou Anta ma defaral ko bagaas ah weex na ah waaw na weex rek waaye xam naa ne fii moom lu muy jaay weex ba yegg si fii dina xam ne fii la weex fii la weex sëse bëgg naa ñu bëre daal parce que tamit combat la boo xamante ne nii du man sax man maa ko réclamer mais dafa nekk affiche boo xamante ne nii nit ñi dañ koy laaj da ngay dox sax ñu ne la ah sa combat ak Modou Anta sa combat ak am na sax benn promoteur bu ci nekkoon mais par la suite affaire bu problème mu prix lañu moom Modou Anta ci lañ jàppante quoi moo tax combat bi taxawul. non man pare naa pare naa pour bëre ak moom non man su ma sañoon ngeen jox ma ko waaw bu la neexee sax biir Thiès ah wër na yàlla billaahi bu leen neexee xam nga moom day ñëw di wàllu siyaan di ñëw Dakar di bëri si ñu ko koy acceptel man su ma sañoon promoteur bi tëgg sama combat ak Modou Anta da koy tëgg biir Thiès incha allah. waaw ñu ngi ci suñuy entraînement bu baax a baax a baax comme ni ko Moussa waxee rek comme yéen Thiès ngeen jógee Thiès dama faa am benn bor te man bëgguma lekk ak maak ambulance bu Thiès ambulance du man du man maa ko laaj sax mais lamb moo ñu boole woon ñu dem ba war a bëri courant coupé. xaalis boobu nag dama kaa waral dama koo lekk te bëgguma mu reese comme ni mu reese nii damaa bëgg ñun ñaar ñu sëgg bëri Thiès Sidi Diakhaté moo ko tëggoon Sidi Diakhaté bu ko seetaanee dina xam li ma wax du man maa ko laaj nag mais xaalis boobu damaa bëgg mu rees si jàmm ak salaam pare naa pour bëri moom <laughs> loolu xam nga ne xam nga ne loolu lii neex na maag Modou Anta laay Pythagore ak ambulance biir Thiès ci benn ci benn jour loolu neex na doom day loolu nañ ñu ko may. ñun ñoo leen ko may bëre seeg ñoom biir Thiès ba pare fas yéene leen daan yóbbu ndam li parcelle incha allahu rabi <laughs>